Mercedes 508 communément appelée Ndiaga Ndiaye occasionnant comme bilan provisoire jusqu'à présent wolof euh, monsieur le ministre man le commandant Amadou Fall maay commandé le groupement 5 des sapeurs-pompiers donc tey ji tey ci fajar à 5 heures 55 minutes les secours yi nekk Louga sapeurs-pompiers Louga dañu leen alerté pour ñaari projet yu daje fii à quinze kilomètres de Louga environ yi présenté minutes après donc ça prouve qu'il s'agit effectivement ñaari oto yu mbëkkante benn oto bi camion bu jógee côté Dakar beneen oto bi mooy horaire bi jógee côté Ngij day day polariser village yi nekk Ngij Sakal et foofu la jógee yeboon tamit ay passagers bi ñëwee ba fii donc les deux la def accident donc secours yi bi ñu présenté woo treize minutes après il s'est trouvé que mu am au total quarante quatre quarante quatre victimes ci quarante quatre victimes yooyu mën nañ ci compter euh, dix yoo xam ne si ay victimes yu metti metti la euh, cinq yoo xam ne ay victimes ay blessures yu xaw a yemb mbay la ak malheureusement bi ñu compter bu baax identifié même avec le docteur médecin chef district sanitaire de Sakkan mu ñëw identifié sur place am nañu vingt euh, nit ñu ñàkk seen bakkan malheureusement maintenant l'ensemble de ces victimes là ak blessés yëpp évacué nañ leen diggante hôpital régional euh, bu Louga ak hôpital régional bu Saint-Louis Saint-Louis sax daanaka ñaari blessé rek lañ ko yóbbu sinon testu blessé yëpp yóbbu nañ leen hôpital district donc de Louga bi loolu amee pompiers yi ñëw nañ en nombre ay moyens mais aussi gendarme bi ñëw nañ teel nañ ñëw ñu xàjjil ñu bërëbu liggéeyukaay ba mu permettre ñu victime yi nga xam si malheureusement dañu kepp woon ñu mën leen jël temps pour génn leen correctement donc victime yi kepp woon ñëpp ñu génn leen yëpp ñu évacuer leen oto yi nga xam ne si aussi dañu empiété woon sur l'emprise de la société si tali bi ñoom tamit ñu def tout ba wàcce leen pour éviter beneen sur accident voilà autorité yi teel nañoo ñëw le ministre du transport juste après l'accident il s'est présenté plus le gouverneur de Louga plus le procureur de Louga ak l'ensemble donc des autorités de la place qui sont présentées très rapidement